quiero que nuyu naa waaw ñu ngi lay fay Fall. Fall daa mel ni fee neex na de. waaw neex na tuuti rek waaw. ginnaaw bi ñu waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur. waaw di gërëmaat suñuy waajur di leen santaat bu baax ndax lépp lu fi waay am rek ñaanu waajur moo tax nga am ko. di sant suñu sëriñ sëriñ Cheikh Roxaye Fall borom digal di sant uh, waa Ngor gépp di sant suñu entourage bi suñu staff bi tey gërëm di santaat ñi ma nekkaloon. muy Maam Lamp ak soxnaam si di Daba Ndiaye doomam ji di Cheikh di sant ab sa jaañ waaw Lamp di ko gën a santaat daal di ko gën santaat lu mu ko sant rek doyul waaw di sant sama gars yi ñoom Adama Ndoye ñoom bu ma waxee Adama rek daana ko lim naa staff bi yëpp di santaat ngor di gërëmaat ngor te di leen wax ne seen doom dellu sowaat na yaa di leen tàllaat loxo ngir ñu ñaanal ma si liñ jëm dafa mel ni defet bi nga jóge moo taxoon nga dem yokk wala doomu jàmm gën moo tax nga yokk ci doole. non làmb moom boo si nekkee moom xamoo kañ lay jeex kon saa su ne da liggéey rek waaw parce que dañ liggéey doole ngir sa dëkkuwaay noonu demee fi mu toll nii moom wax fa dëgg neex yàlla moom teguñu suñu bët sax si doomu jàmm gën amaana suñu borom moo def dessin ne que dañuy jaar si moom da dañuy bëree moom. tukki moom moo tax nga tukki ko. waaw tukki bi du moom moo tax ñu tukki ko làmb moo tax ñun ñu dem. contrat am si combat bi contrat bi moo tax nga dem uti. déggoo bu dul woon maanaam bu dul woon moom sax bu ñu newaloon si contrat si moom sax dañuy dem yokk ji doole mais làmb moo tax ñu dem parce que dañoo bëgg dara waaw dañoo bëgg dara di ñëpp di nuyuwaale sama coach yi passage di nuyu Boyka ak ñi fa newoon ñëpp city club bi yëpp maa leen di nuyu di leen ñaanal tawféex. ñaata séance nga doon doon naa fa def deux séances par jour des fois ma def trois séances par jour. quoi parce que foofu temps bi moo gën a gaaw temps fii quoi. temps foofu moo gën a gaaw temps foofu moo gën a gaaw. xam bi nga jël man moo tax nga yokk ji doole waaw champion la ndaanaan la waaye aussi tamit gaynde foo nga daan champion daan ndaanaan pour man a doon champion. yee xeebaluñu ko bësam xeebaluñu ko turam xeebaluñu ko ki mu doon jox ko moo tax ñu dem yokk ji doole. yee ñuy ñaan sunu borom yàlla may ñu ndam suturaal ñu boobaa incha allah. combat moo tax nga dem yokk ji doole. waaw dayoo combat bi ak combat yi suñu kanam nee ñu làmb lañ fi neenal ñu fi pour doomu jàmm gën kase ñu fi pour Modou Lo kase newuñu fi pour Balla Gaye kase ñu ñuy fi pour làmb ku ñu làmb booleel pour ñu bëre dañuy bëre yow dañuy jëflante ba mu neex. dafa mel dafa demoon yokk ji xeex bi. yokk nañ lépp yokk nañ physique bi surtout côté physique bi yokk nañ ko bu baax yokk nañ bagaar bi bu baax et yokk nañ xam-xam bi jàngaat nañ fa yeneen loo xam ne tamit bokkutulaax làmb. amaan na ñeneen expérience parce que génn tamit baax na loolu quoi dégg nga. dafa yokk maas. waaw yokkuñu maas ñu nii rek. waa maas. wala sa ñu rek ñuy sant suñu borom rek. waaw ñëw fi bëgg yeggali li des ak gars yi écrit bi ak suñu coach yi père Youssou Ndoye père Sundoy père Ibou Diop ñoom Philippe As. ñaan le 31 décembre la incha allah rabbi bientôt même pas 21 jours incha allah def Noël bi. waaw kooku dañ koy féete. li wax LP. waaw li nga koy mooy incha allah rabbi yàlla sunu borom may ko fekkee ak tan waaw may ko tawféex may ko jàmm ju sax dàkk xam nga mu ñëw ñu daan ko nànk mu dem ñibbi. bu xeexee. bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan ko incha rabbi. moom foofu li fay neex yëpp moo koy def. barki Serigne Cheikh Fall borom digal amaana ay waxam la rek mais ku xam fëgg la xam ne ni mu demee rek defet moo ñu boole mais Brodé boobu dama moom toujours ba muy fecc muy bëre muy xeex lépp moo ko def waaw waxu boppam la xam nga rek làmb ji moom des fois bu ñu la boolee sa morom moo comme la micro yi ñu dékkaloo ko lu la neex waxal mais bu ñu demee ba stade ba 22000 places la. nga ne bu ñu demee. 22000 la. moom amu fa dara moom la gën a jege mais amu fa dara man la gën a yeey làmb ji incha allah rabbi. <laughs> déggoo lim la bu xeexee ñu duma ko bu bëree ñu daan waaw Lamine di ko wax ne moom xale la ñun ay xale lañ xam nga te xale bu nekkee si yoon di liggéey séq ko ay ndaw dañu war a remplir contrat bi mu mat sax incha allahu rabi du ko rëccu maanaam li tax man na dugg ko rëccu mooy li mu bëgg si làmba yi dinañ ko indil bu dee mobilisation dinañ mobiliser lu mu laaj si bés bi yëpp dinañ ko def. incha allah mobiliser combat bu mujj. waaw lu ko raw incha allah rabi bëgg nañ ko mobiliser. waaw di woo yi ñu ñëw jàpp si bés bi waaw di fukki penc ñaar yëpp lébu yëpp. 4000 pour cent bi Ngor Waxaam Yoff Almadi Taraawo aéroport ñëpp di leen woo xam ñu ñëw jàpp si bés bi wax na leen seen doom bu ngeen di woo le 31 décembre waaw ñu ñëw defaral gan gi dem xoole leneen waaw. léegi fu ñu jëm ni fi ñu waaw dem dugg dallu xëy suba nekkaat si terrain yi rek. naa ah, bien sûr <laughs> waaw. doxal ñu dem. waaw ah, tawfeex. iri iri la waaw fëkk ngi noonu digganteem ak doomu jàmm gën la. mu nekk espoir boo xam ne fi si làmb kenn dootu ko naataamle ndax soo xoolee dem na yokk ji maas nee yokk na maas yokk na xeex bi yokk na lépp gis ko digganteem at kan doomu jàmm gën la soo xoolee bi muy dem at léegi fi xaw na am différence saan un grand caméraman a ngi noonu oh, waaye daa xiif na ngeen bàyyi ko xel